أين مني أين منه من اللقاء أين من اللقاء سنغال أين موضوع أين ميسي من اللقاء أين من اللقاء سنغال سيدي أحمد سيطا وموضع من اللقاء من اللقاء سنغال شيخ الخليفة إبرم جامونو من اللقاء من اللقاء سنغال برم تمنوا من لقاء من لقاء سنغال شيخ الخليفة حاجي منصور من لقاء من لقاء يا حاجي منصور حاجي asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñuy seetaan ci Wilane TV yéen ñëpp ñu ngi leen di ziyaara di leen jox seen wàccuwaay di leen nuyu di leen ndokkeel ci weeru gàmmu yi nga xam ne dugg nañ ci yéen ñëpp di ci jiital xalifa bi Serigne Babacar Sy Mansour niñ ko daan defee rek eh, jamono boo nga xamee ne ñu ngi ci anniversaire Serigne Aziz Al Amin danañ doxantu ñëw ba fii ci kër soxna Ndey Assouci Al Amin ngir mu waxtaan ak ñun am lu muy dénk ci jikko yi Serigne Abdoul Aziz Al Amin ak doxalinam ndax ñu mën koo di dimbalikoo ci jamono bi fi mu toll loolu nag eh, min ngeen ko depuis at yi yëpp ak ñun ak moom mu diñu ko yombalal saa su nekk jotam mayu ko ko waaye bu nu ko soxlaa rek dina am lu mu bàyyi ngir yàlla ak euh, njaboot kon nag ñu ngi koy ziyaar bu baax a baax baax si Malick di ko ñaanal yàlla barke bi nga xam ne bàyyi bàyyi na ko fi yàlla bu ko ci kenn ëppale ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah dëgg ma liitam li nga xam ne mooy gàmmu Tiwaawoon te ku tudd gàmmu Tiwaawoon tudd organisation tudd tabaarakallaahu méthode tudd doxalin tudd itam ay ndaw tudd ay mag yoo nga xam ne dañuy daje ci benn bërëb pendant dix jours loolu dafay laaj organisation boo xam ne moom mu ngi ci biir bokk ci li nga xam ne mooy Saalihu Zawiya Tijaaniya di li nga xam ne wàllu communication ci gàmmu gi ak ci kër gi ñoom la ko sëriñ Abdul Aziz dénkoon boole kook euh, euh, doomu baayam tabaarakallaahu sëriñ Abdul Hamid ñi di ko saytu kon nag euh, xam naa facette yi ñu war a waxtaanee moom bëri na dañu koy bàyyi rek mu nuyoog yéen ci kàddoom yu tedd yi ñu doog a dugg ci question yi nga xam ne dañ ko koy laaj incha allah. aouzu billahi Euh, maa ngi nuyu waa Wilane TV yëpp di nuyu ñi ñuy seetaan di leen ziyaara di leen euh, ndokkeel ci weer wu tedd yi ñu ne ñu dëgmal jëm gàmmu ah ñu def nañ ko daan defee daaw ak ñett at yi paase rek bi fi góor gi génneeg léegi génne àddina ak léegi ah nuyu ñëpp ziyaar ñëpp ñaan yàlla yàlla yóbbu ñu ci jàmm gi ak jàmm ñu gàmm ko ci jàmm lépp lu ñu fa ñaan yàlla nangul ñu ko euh, ci barki Serigne Babacar Sy Eh, jërëjëf soxna si ci nuyoo bu tedd bi tabaarakallaahu question bi fi ñu koy njëkkee rek xam na at bu jot danañ laaj nag kan mooy Serigne Abdoul Aziz Al Amine mu mel ni tey eh, question boobu dañ koy daw ndax yaakaar naa léegi ñëpp xam nañu ko te itam at bu jot ñu laaj ko waaye li ñuy laaj tey rek mooy fi réew mi toll eh, ci situation bu jaxasoo pourquoi koo dajal rek mu ne la bu fi Serigne Abdoul Aziz Al Amine nekkoon dana def nangam wala nangam wala jooy nañ ko comme itam ni ci turandoom. Euh, alxaaji Abdul Aziz lan moo doon doxalinu góor gi ba mu bàyyi fi vidde boobu waaw Serigne Abdou dey xam nga moom médiateur social la woon au-delà de médiateur social moom euh, Sénégal daf ko ñoroon xam nga loolu mooy différence bi tey euh, li tax lu bari bu xewee ñi ne bu ñu tuddul maam Abdou Aziz Dabakh na yàlla yokk leeram Serigne Abdou la ñuy tudd euh, parce que euh, seen rôle biñu fi fi euh Serigne Abdou particulièrement mom la gëna xam euh dafa jéggi woon tarixa jéggi race jéggi euh, naka laa la mën différence yooyu daf ko jéggi woon moom Sénégal moo ko ñoroon Sénégal dans sa globalité nag amul chrétien amul musulman amul euh, amul tijaan amul mouride amul cadre considération yoy dafa mujjoon minimum ci rôle rôle yi mu doon jouer. ba tax na Sénégal la ko ñoroon te bu ko Sénégal xam nga nit bu la dëgg ñoré do ragal wax dëgg te moom Sénégal la ko ñoroon mu jaral ko lu nekk nag waaw ku ko ci mere di nga ko mere parce que moom bu jaree wax day wax te dafa nekkoon nitu responsabilité bu waree jël ay responsabilité am daf koy jël parce que mës na ma wax ni ci temps politique mu dëkk bi tàng nit ñi di ko critiquer parce que nit ñi dañ ko daan critiquer rek parce que xamuñu woon lan la bëgg mais ñun ñu dëkkoon ak moom xam nañ ko benn jour nag ma ñëw di ko wax yi nit ñi di wax papa lii papa laa wax ba mu daal di ma nit ñi li ñu bëgg duma ko def nit ñi li ñu bëgg duma ko def réew mi duma ko bàyyi politiciens yi ñu jël ko yàqu ko ba mu yàqu bu paree ku ne boq sa doom ak say soxna ne mott génn réew mi dem ñun nag comme ni ma waxee woon rek amuñu feneen Sénégal la am bu fi ay xeer kese desoon ma baxal ko naan toog fi xaar yàlla mais loolu patriotisme gënu ko rëy bu fi dara desul woon lu di li xeer ma toog fekk nit ñi baxal ko naan ñu xaar yàlla kooku patriote munu ko munu ko kon nak mom responsabilité mo taxone vraiment mu mu engagé wu sur le terrain politique euh, te àndul ak parlo nak surtout ça moom euh, politicien bu ñewan daf lay wax deugam daf lay wax aussi li mu xalaat daf lay wax aussi ni de boko ko won mu dem ni wala suma sañon ngeen waxe ni donc euh, ku mel noonu nak bu fi joggé bu situation yi ñëwé faw nit ñi te amuñu lu ko remplacer aussi il faut dire la vérité aujourd'hui euh, critiqué wu ma c'est juste que dañu gisul lu ko remplacer xëy degré d'engagement aussi ak demalante ba mu daan demalanteeg nitu àddina yeeg nitu diine yi xëy na tey am nous ko amul ñu fi bari amul amuñu ko te xam nga relation ken du créer ci dar. daar lu yàgg lay doon Serigne Abdou nag dafa yàgg ci mag ñi euh, procédure là dafa traverser ay génération té beau traverser génération fay am ay liens yu lay lii ak nit ñi ay liens yu profond ndax mom du and andu andu euh, lu neex neex day and ak yow ci deug donc lolu position mo taxone euh, tay tey yi amé ñep xalat ko parce que mom médiateur le won fa doon réconcilier de doon yore pusoom di ñëw

ñii juum nañu ba xam ne juum nañu ñii ñëw nañ ci moom ne ko ah yaa waxoon dëgg parce que au-delà de ñoom seen aspect nitu nii ci biir nit ñi mais yàlla am na lu mu leen may nag loo xam ne yow man yow laan xamoo ko man day astu si xaw ma ko Samba Ndiaye xamu ko donc bu ñu lay wax leen waxuñu ko tegu ci seen bàkkan mukk ci àddina

mu jaral dina ko jaral nag lu ne euh, nag ak affaire bi du question rek affaire àddina affaire bi aussi ñaan la parce que jullit moo daan wax ni jullit aramam mooy ñaan da ci daan def alalam di ñaanal réew mi di yow xam nga ci dara di def alalam wut ay géewu ñaanam di ñaanal réew mi pour réew mi dal di ñaanal réew mi di xool réew mi loolu amatu fi de wala <laughs> bu fi amee te itam de que Sénégal ñoree noonu di ci def alalam ay million et des millions di wut ay kàngam naan leen la leen Sénégal yaakaar naa ne amatu fi nag waaw waaye nag ah loolu yàlla dogal yàlla na mu tëdd yàlla na yàlla yokk leeru bàmmeelam ñun ñu taas yi si barkeem yàlla baax na. Eh, soxna si damay dëggal rek li ko wax ndax moom ci boppam laa mosoon dégg mu ni bu gàmm gi desee quelques jours mu ne damay dajale muxadam yi fii ci salle bi ci kaw di leen jox ay dog dem na ba leen di tooñ naa ñoom ay buur lañu duñu lekk lu naqari nga yëg ne gàmm sax daf ko daan jëlal ci wàllu mystique waajaay ko euh, ba moo waraloon bi jamonoy choléra bi ñëwee mu taxaw jël engagement ne dara du xew te na mu ko waxoon la ko ci yàlla fekkee kon kooku bu ñu nee day jël alalam di ko def ngir jàmmi réew mi lu ñu war a gëm la ndax am na lu ñu ci xam kon ñaan yàlla yàlla yokk leeram waaye soxna si su ma doon laaj lan mooy alaaka Serigne Abdoul Aziz ak Serigne Babacar si lan mooy spécialité bi dox ci diggante Serigne Abdou ak Serigne Babacar gannaaw doom ak waajur ah loolu dina jafe ma tontu ci parce que du époque buma féké waye ci ci ay netalé mom lamiñam samay nop mu dégg ko lu bari muy wax euh au-delà de de de la de baay ak doom yaakaar naa ni relation de confiance moo woon seen diggante ndax bariwul kuy jël doom ju am 14 ans 15 ans di ko dénk lu toll na xadara diko denk dénk xadara euh, dépense su këram di ko lu bari ci xalé bu non donc euh, je vois que buñuy wax tay rek damay lire ndeysaan je mang koy saluer au passage moy aladji Hadj Majib mu bind quelque chose de très émouvant ci Serigne Abdou et dëggate mu ne modèle de droiture la yaakaar na ni bu njub ah rew mi gisuma ko ko fi gëna njub jub de ci lu bari nak waaw je crois que njub googu la ko sëñ Babacar Sy xamoon ba tax mu di ko ak ay baayam aussi am na anecdote ak sëñ Habib am nag anecdote yu bari yoo xam ni nit ñi dañ koy dañ koy nattu di xool fu njubam yegg mais buñ ko nattoo rek xam ni waaw je crois que relation de confiance boobu ak relation wu xam nga nit di nga jur doom nga gis ci say doom kii jaral nga ko dee kii jaral nga ko bàyyi àddina kii jaraloo ko dara genre sëñ Babacar dafa xamoon ni mun na compter ci ñoom ci moom ci wàllu ku mës a d'ailleurs mook sëñ Cheikh d'ailleurs mën nañu wax la ku mës a duut seen mission benn la ku mës a duut baaram seen baay ah balaa noonu noppi dana la duut baaram et je que loolu aussi gis nga yàlla nitu yàlla boo ko liggéey la foofu yàlla fay la te côté bobu, dañ cee taxawu seen baye ba seigne Babacar ci wax ko Té euh, du dara c'est juste que euh, ñoom xëy na engagement bi ñu amoon ci parce que jamono seigne Babacar nekkoon na yenn saa yi jamono xaw a ci mom. waaw Ñom nak ñu taxaw nekk ay soldats. waaw bàyyi seen lepp diko xeyal diko gontal diko défendre seigne Cheikh ko bind ci mom bind ci yow seigne Abdou man bari na ñu may wax ay mag ñoo xam ne tey ay <laughs> ay kilifa la ñu woon ci tarixa bi sëñ Abdou jaar naa ñoom foo xam ne ci jamono ah, buñ la koy wax dama ko naan yaa def lii mu ne hmm? <laughs> waaw ñoo xam fekk nga wax baayam ko war wax mu ne la fuuf pes waaw ndax bañ ku tudd seen baay e yaakaar naa ne nag sëñ Babacar ñëpp nangul nañ ne nitu yàlla la waaw xut bu zamaan la waaw kooku nag boo ko liggéeyalee ba mu gërëm la nag foofu yàlla am fu mu la fay nag Il y a des relations relation de confiance une relation de de de barricade protection protéger seen papa euh, relation euh, mystique parce que Serigne Abdou bi muy bi mu de sëñ Babacar dégg un génn àddina ak Cheikh je Mansour ku ne génne sa la señ baba ko jox mom buñu ñu rek mu génne bosam <laughs> ñu ne ah yow ndekete bi itam am nga ko mu ne ah waaw ah, señ baba kan nak mo nekkon ci wetam nak wa di ko doxal service di ko doxal yu bari wa mu won la ni rek nekkon wóolu na ndax amna na xamni ku koy jox ab ndaw am nga lo ko wóoloo waaw loolu man ci seen digënté lolou la gis té nak ci ci mujjé dundam man gëm naa ni sëñ Babacar bu sotti la woon ci mu jëg dundam sëñ Babacar bu sotti la woon waaw ndax euh, yu bari daf la koy ay misaal yu baree baree baree bari yoo xam ni vraiment euh, dañ la koy wax euh, am ku ma fan yee rek am na sama benn rakk bu ma gént gént gu doy waa te ka ko gént sax du bokkul ci tariqa tijaan da neen waaj dafa ñëw ne ko kan moom kan lañu kan moo nekk ci boppu jàkk yi sëñ Babacar ci kanam lan moo fa nekk mu ne ko ah foofu raw du sëñ la mu ne ko mën de saa yu ma parce que kooku bon bokkul ci tarixa bi waaye gëm na ni gëm na sëñ Babacar daf koy defal tawasul di nee na mais saa yu ma defee tawasul ci góor gi sëñ Babacar nee na day jóge fi mu tëdd ci rawdu bi daal ne ko damay dem jàppi fële ci kanam nee na ñaar ba ñetti yoon saa yu tëddee guddi gént

chaque jour bo xëyee mom ngay moo gis nga lu mu wax ci histoire ma gëm ko ndax dafa fekkee dafa fekkee relation diggante mag ñi fi nekkoon ak seigne Babacar lo xamné du kenn lamiñam la suñu nopp donc euh, mom vraiment yaakaar naa ne bu nit xamee sëñ Babacar moom ci la bokk est-ce que bi fi Serigne Babacar jógee it parce que tey dañu bëgg waxtaan bi ñu delluwaat ko ci cosaan li bi fi Serigne Babacar jógee gis nañ ne boobu ay tout tànk lañu ci Sahir mu des fi moom ak Serigne Moussa Jamil Serigne Moussa Jamil nekk Dakar Serigne Mansour nekk ci daara ji Serigne Cheikh nekkoon ci activité diplomatie wu kër gi moom rek mu des fi nag cundum di ndaw war a yenu kër gi war a yenu dépense kër gi naka la sëñ du dundee jafe-jafe boobu noonu ba mu réussir tey ba kereeg muy dugg ci bàmmeel daf doon génne di joxe ba kereeg muy tëdd ci feebar da doon génne di joxe ak itam naka la bootoo ci gannaawu Serigne Cheikh ba nga xam ne liñ doon xeex lépp gannaaw Serigne Babacar sotti na loolu lan nga ñu ci mën a ñëwal ci diggante boobu nga xam ne fexe nañ ba teel sëñ Babacar ndonoom tey ba tey la turam gën a kawe te dara yëngul. waaw xam naa ni nag loolu xëy na baatinu sëñ Babacar ay feeñ foofu ndax moom fexe na ba njabootam bu nekk am na rôle bu mu la jox la nga joué ko ah. ah sëñ Mansour ñëpp nañ mooy borom daara ji moom moo yore woon euh, loi yi njàngale

dafa am solo ci suñu jamono mu dem wuti koom am ko nag ba mu doy waaw ndax jamono yi yooyu koom dafa amoon solo boo amul koom ba léegi moo moo ñu topp boo amul koom kenn faalewul ah euh, sëñ Cheikh dëgg la baaba kër moo moo indi sos daayira waaye sëñ Cheikh moo ko vulgarisé nag mooy bi sëñ Babacar génne àddina seen tourne bu rëy boobu ñu defoon ndax deg na ci suma seigne Abdou mu bi seigne Babacar génne adina dañu réer tok nañ ay dir at ay at dañu melni ñu rër ndax ki ñi ki ñi ki fi joggé mo mag ci té doonu ñu won ay mag mag mag euh, yaakar na ni tok nañu dir moog seigne Cheikh xawa rër nak waaw ak ñom ñep sa ñom seigne Mansour am na daal luñ ma expliqué ne ma benn mag a ko fekk mu toog mu ne ko waaye yéen seen bàyyi li mu leen fi bàyyil ngeen toog di ko seetaan rek samba ma nee na ma ne dikk ba yàgg la ne ah ma ne kii li wax dëgg la de nee na ci la dem nag seet sëñ Cheikh ne ko diw de nee na wax ko la ko ko wax sëñ Cheikh nee na ba yàgg sëñ Cheikh ne ko nañ organiser tournée mooy seen tournée bu mag booba ñu def nag dans partout dans le Sénégal waaw dem nag képp ku sëñ Babacar amoon ñu dem seeti la waxtaan ak yow saafonte ak yow euh, ngeen fasante kóllëre ah moom nag euh, Seigne Abdou sëñ Cheikh mënul woon toog Tivaouane pour beaucoup de raisons mu bail ko nag kër gi waaye nag di ko di diisoog moom lu xew muy wax ko lu mu nar a dugg wax ko waaw ah, xam nga rek kërub sëriñ ci mujjeel rek xam nga dans toutes les grandes familles y toujours des petits problèmes mais ñoom ñaar suñu réeroo ci àddina même jamono ba nit ñi foogi ne dañoo réeroo réeroo wuñu <laughs> yaa téye jamono nag dina xaw a trouble ku nekk toog waaye ku ne xam nga sa borom ah moom nag mu yor kër gi ndax ah moom la sëñ kër si wóolu woon te mosul fayir mission boobu mais gis nga ni mu yore kër gi ci consensus la ko yore du dugg dara te waxul ak sëñ Moustapha Sy Djamil du dugg dara te waxul ak sëñ Cheikh du dugg dara te waxul ak sëñ Mansour buñ ko nee ayca mu ne ayca bu amee idée itam day dem soumettre leen ko ne leen nii ak nii laa gisee ba mujj gi sax ñoom lu ñu wax dafa leen naan def leen rek dañ ko naan defal waaw nag boo xam nga buñ la ay mag sase say mag sase faw nag nga góorgóorlu ah mu téye kër gi nag du jamono dama ko faral di wax yi ci kaw man leen su ma leen gisee neex lool ah, <laughs> man leen kër gi mel woon nii de kër gi mel woon nii wax dëgg yàlla jamono daan na metti ci moom waaw daan na metti ci moom ndax booba am am bi demewul noonu hmm. waaw maa ngi koy rappelé wu moom waaw léegi nag jamono jamono daraan métti ñun suñu yaay dañ nañ lu ne dañ nañ lu mburu dara ci kaw taal <laughs> waaw ndax xam nga boo yoree kërub sëriñ nit ñi foog ne yaa ngeeg lu ne te boo xëyee suba da ngay taqale pour dundal waa kër ga waaw loolu nag nit du ko xam ndax suñu jigéen jigéen ñoom seen sutura moo tax duñ ko xam waaye jamono dafa daan métti waaw man moo daan dégg nit ñi naan sama baab dafa yore ay milliards te yenn saa yi mu xëy suba te daawul yor lu mu jënd essence <laughs> loolu xam nga ñu bari xamuñu ko woon ndax ñoom xamuñu denc denc di denc xaalis ñoom xaalis buñ ko yoree dañ luñ lu leen yàlla wërsëgale ñu bokk ko nit ñi sëñ Abdou tam générosité moom dafa mës a mën a may moom day may may may ba mayee li mu war a may. Euh, ñun ñii dama lay wax bari na doomam bu jàng étranger xamul sax ñaata nga daan fay ndax daf lay wutal bourse rek bàyyil nga débrouiller <laughs> xalal nga bàyyi la nga débrouiller li ci des yoonam nekku ci ngay galérer comme ñëpp comme doomu keneen ñi di galérer nit ñi nag bu ñu la génnee dañuy foog ni bon dañ la jël yóbbu la ci àll bi jox la ay lu jeex alors que euh, mais moom non non non, la non non, yarul non, ci ay non, la ngay jox non, non, def non def defal ci donc non, mu organiser wu non, gis nga buñ non, non, responsabilité bu toll non non amul méthode organiser wu non, ci non, non, organiser non, non, yi ndax baykat la baykat la euh, moment il est non, fi non li bay non, li mu non, non, Sénégal mu organiser wu nag ci kër gi xool kër gi lu mu soxla mu organiser wu ci wàllu mbay organiser wu ci wàllu industrie di bokk ci ay industrie du ca feeñ nag waaw di bokk ci ay jënd ay action waaw yooyu yëpp daf ko daan def parce que musu moom mosul gëm ni sëriñ dafa war a toog ñu koy jox addiya ndax addiya ni mu daan wax am na nu ñu daan tooñe addiyay tiijaan ak jullik pël ak xaw ma lan am na <laughs> nee na ko ku ci yaakaar <laughs> ama mbayum pël man ak jullik baay <laughs> waaw noonu lañ ko raate waaye addiyay tijaan moom ku ko ku ko yaakaar ci sëriñ di nga mere ku la deful dara waaw moom nag mu organiser boppam nag wax dëgg yàlla organiser ko de telle sorte que kër gi du manqué dara su ma nee kër gi nag kër Cheikh Al laa wax ndax moom au delà de kër sëñ Babacar kër sëñ Hadj Malick la la la ëmboon ñëpp waaw di dimbali ñëpp nag wax dëgg yàlla dimbali rakkam dimbali euh, euh, frère yi di dimbali doom baayam yi dimbali ñëpp ci kër gi wax dëgg yàlla éloigné ñëpp mu ëmb leen euh, bon loolu nag xam nga générosité ci ci ci xol la joxe joxe du ñëpp ñoo mën ñoo am di joxe. nit mën na am àddina ak li ci biiram te du joxe un franc nit mën na am 1000 francs séddale ko ñëpp moom nag genre boobu la woon boo amee 1000 francs da koy séddale ba du am dépense bu mu joxe këram loolu moom nit ñi xam nañ ko euh, mais comme ni mu waxee rek benn dama ko ne li ngay joxe dafa bari mu ne ma ah waaw mais man saa yi ma ko joxee rek sa maam wan ma ni moo ma gën a baax mu ne saa yu joxe joxe ba deseetul dara. nee na am yàlla bon ko ne moo ko gën a baax mooy indi leneen ndeysaan dama am benn sœur Safietou day wax ne bu jóg sam bu ñu naan gis sam baab muy joxe joxe dama naan koppar foru xat bi lañ ko dénk <laughs> dama naan ba bëgg a dee war ko nga mu ne ma déet góor gi li muy joxe koppar foru tarixa bi lañ ko dénk mais moo organisé nag wax dëgg yàlla organisé ko de telle sorte que soxlaatul kenn dara waaw di bay ay toolam def ay toolu mangoom def ay toolu ceebam defar ay ak industrie autonome sur le plan financier bon du tee nag di nga gis taalibe bu ñëw dimbali ko ci daara ji wala yooyu mais musul compter ci li nit ñi joxe pour dund musta am te li muy dundale njabootam ci li muy bay la du jël addiya moom di ci dundal njabootam kooku moom daf bañ na ko ba bu ñëwee sax yow doomam soo diis ko soxla dafa am benn xaalis boo xam ne pour njabootam du jox comme nit jox enveloppe nii mu jox ñoo jox la ci jamais mu am xaalis bu mu lay jox yow njabootam li muy liggéey ci lay jox njabootam li muy liggéey moom lay dundale njabootam ci ci lay nit ki manqué kon loolu lu lu ko teniroon ak cœur la euh, moo tax des fois nga dégg nii do man xam leen sax li xew wallahi lazim xam leen li xew euh, mag mu selloon la di di sàmm diggante mag mu boromam tam diggante mag nit ñi ah, kooku degré d'organisation am sax nit ñi xamuñu ko woon waaw vraiment ak nag mën a mën a mën a décentraliser ku ne am na lu mu la dénk ñëw réunion ñu prendre ko compte ah, dafa meloon ne gouvernement daal rek yàlla yore gouvernement ku ñëw rendre ko compte mu bind noté bu mu demee ba xaw a euh, mag di ko xam day bind day bind bind bind waaw kooku nak mom xam nga ah xam naa lu ko ya yalla may la ndax ma si ñabdu mom la mu mënoon kenn mënu ko ci deug deug deug deug yalla lolu lu mayuk yalla la te nit boko fekke ci mayam xeb sa bopp waaw mayuk yalla la won mu organiser wat keur gi nak waaw travailler ci walu ndaw ñi waaw travailler lu bari ci walu ndaw ñi wallahi alazim motax tay gis nga xalé yi waaw travail waaw organiser wat keur gi nak wax bi ñëpp demee bàyyi ko fi euh, ci seen i ndigal ñoom ay magam mu organiser waat ñoom ñëpp wéyal li mu bëgg te tey kenn rëccu ko nag wax dëgg yàlla. <laughs> ah tabaarakallaahu soxna si dafa mel na yi nga indi yëpp dafa wér ba nga xam ne ki koy déglu dina xam ne eh, da nga ciy jaar rek ci digg bi ni mu amee eh, Serigne Cheikh Tidiane si ak Serigne Abdou moom damay wax ne cosaan la ak mujj gi wuutewul ndax Serigne Cheikh moo taxawoon ca kër Jëmba ne bu ma doon am taali bi benn rek lay doon. mooy Abdoul Aziz waxaatuwul ci diggante bi lu weddi loolu ba keroog bi mu génnee àdduna dañ ko tëral ci kanamam mu jébal ko borom six mois la ci teg mu dellu ci histoire Fatima ak yonent bi mu dëj Serigne Cheikh bi dëj bi rouge ci la dem fekki ko nga yëg ne durant mission Serigne Cheikh sëñ Abdou conduire xilaafa Serigne Cheikh ci wax ak ci jëf defe naa Serigne Cheikh mosul yónnee ne nañu fal imam ci sawiya Serigne Babacar wala nañu def nangam ci koskaas wala nangam lépp lam ko joxoon rek daf ko wëyal kon nag tabaarakallaahu ñu dëggal loolu euh, léegi nag euh, lan moo nekkoon relation Serigne Abdou ak bitim réew ndax dafa mel nit la koo nga xam ne que moom kattanam ak dayoom euh, yemul woon rek ci biir réew mi amoon na ko ak président yi nekkoon ci Afrique ak yi nekkoon ci monde bi yëpp daal boo xoolee surtout monde arab am na fu ñu ko tegoon kuréel gu am solo ci islam bi muy lig mondial appel islamique lan nga ñu mën a fàttali ak dayoo Serigne Abdoul Aziz Al ci au niveau international waaw loolu dafa am lu ko waral xam nga mook Serigne Cheikh bi ñu bi ñu defee seen tournée yooyu ba organiser waat kër gi dañu njëkku am association pour nag euh, décomplexer ñi jàng arab parce que ñi jàng arab dañ leen a marginaliser woon ci réew mi waaw yaakaar naa ni tey damay faral di wax ni képp ku jàng arab ci réew mi war nga leen boo fayee ko nga jox leen seen àllarba ndax dañu xeexal euh, ñi ñi nga xam ne dañ leen marginaliser maanaam ñi jàng arab ak ñooñu ñu marginal ñoom ñoo vraiment commencé créer association euh, um di journal euh, xeex ñu wutal ñooñu bourse ñuy dem ci pays arab yi créer fédération des associations islamiques du Sénégal nga xam ne tey seeni dipl lu ñu la signalul diplôme sa bac du baax sa bac arab ci ñiko ñiko fi ñëk lañ def mom la ci la leen état bi jox agrément yek yoy kon koku xam nga buñu défé lolu loolu faw ñu am ak Serigne Cheikh aussi bi mu démé ci ambassade bi mu jappanté Senghor ak la ca xew yépp ba mu jigi ñu jubo mu yóbbu ko ambassadeur yoy yépp dafa am lu mu créé manam ñu ñëmé le monde euh ndax li ñuy jang ak li lak moom mooy ñoom ñoo ko gën <laughs> donc je crois que lolo li tax ñu ñu ubbeeku noonu loolu ci la bok. bon Serigne Abdou aussi euh, beaucoup ci association yu bari ligue islamique mondiale bi ngay wax muy jiite wu ko woon ca kàngam ya la bokkoon euh, mooy foofu la njëkk bopp après appel islamique Moi, bu mujj bi bokk OCI bokk ci association yu bëree bëree bëri loolu dafa lay indil dafay tax sa cercle bi ngay cercle bi yaatu ci wàllu jëflanteeg pays arabe yi ak nag suñu relation ak Maroc euh, ñun suñu relation ak Maroc moom relation d'amour la comme je dis <laughs> ndax Maroc boobu ak sa waajur dañoo amoon relation bu dëgër mun naa ne bi fi Alxaaji Abdoulaye Sy jógee moom moo jël relève bi moo doxoon diggante Tiwaawan ak Maroc buur bi am fu mu ko tegoon ba nee nañu ci yenn soxlay boppam sax bu ci jaaxle woon day yónnee ci sëriñ Abdou mu taxaw ci mu jege woon ko lool ba ci mujjug dundam mayoon na ko ci ram bu Maroc ne ko kilifay autorité Tiwaawan bu ñuy tukki dañ leen defar pour pourcentage boo xam ne ñoom lañ koy defal loolu grâce à sëriñ Abdoul Aziz Al Amine kon tey xam naa lii bu ko fekkoon ni xalifa bi taxawee it noonu lay taxawee rek kon nag dañu bëgg nga joxe sa solidarité ak Maroc profité ci en tant que doomu Serigne Abdou en tant que membre de la famille waaye itam wax Serigne Abdou digganteem ak Maroc ci wàllu diplomatie. waaw xam nga Serigne Abdou moom dafa mës a moom ci Mohamed Sank la commencé woon ca papa yi Hassan II seen relation yi dafa yàgg euh, mu am aussi dafa am ay famille xam nga dëkk bu dafa am famille qui xam quelque chose man loolu pas ma ko je am une famille qui me présente. en général gens qui sont genre procureur de la république dafa ont ay relation yu avec la famille Et, ak c'est cher. Cheikh une relation naturelle la sur le plan de la diplomatie euh, Hassan II daf la joxoon cër m'a jox ko cër lool ba duma dugg ci ay yu bari fii lañ ko ko daan defalee ci Sénégal au bi maam Abdou génnee àddina Serigne Abdou moom moo jël relais bi foofu euh, di jëflanteeg Xasan de lu lu bari ci lu ci yu yéeme ci wàllu état bu ñu jaaxlee bari na lu ñuy def Maroc bu ñu jaaxlee fii lañuy ñuy woote Tiwaawoon ñu réglal leen ko te nit ñi xamuñ ko du dégg si nous fii bu ñuy nous sommes bu nous Maroc au Sénégal nous la nous <laughs> pour moi, <laughs> parce que relation yi ñu am la ah sur ñu nous, ci nous, ci conseil ci yu parce que diplomatie du état état diplomatie diplomatie population yi dafa njëkk am ñun suñu relation ak Maroc avant muy euh, relation état.

wa Maroc ba légui ni sumay dem Maroc euh sumay yegsee ci Tour Hassan suñu ne ah c'est la fille du cheikh dañ may traiter comme princesse de Galles la lazim booy génn dañuy daw ubi lo auto bi eh c'est la fille du cheikh Cheikh Abdou Aziz ya Cheikh Abdou Aziz lam len dan jox awu ko de way moo rek ngén ngén bàyyi ndax bu ñëwaan fofu ndeysaan day def teranga ci hôtel yi ku ne mu jàppale la nit ñi vraiment mon relation avec Maroc bu dee bu Maroc sax da ngay sentir né benen nit la ndax dafa bëggoon Maroc man mi noonu la bëggé Maroc damay wax toujours sama xaritu marocain fi moy sama deuxième dëkk euh, Maroc c'est ma c'est ma deuxième c'est mon deuxième pays. waaw waaw dafa mel ni moom la mujjee génn parce que fàttaliku ma fu mu génnewaatee après après dematu fi France dematul fenn euh, Maroc moom ak Sénégal. Euh, vraiment c'est ñaari dëkk la yoo xam ni au-delà des relations étatiques dafa am ay relations yu ñu lié waa Kër Cheikh Ahmed Tijani ñoom nag ñooy suñu sëriñ euh, ak euh, relation bu sëriñ Abdou amoon ñoom dañ ko daan demander conseil ci yu bari ci wàllu tarixa bi ci wàllu yu bari dañ ko daan demander conseil ainsi que l'état sénégalais ma barki dem rek am na wenn ku ma woo naan ma dañ ma jox sa numéro parce que dañ ma ne doomu Cheikh Abdou Aziz nga te vraiment kan moo nek seen kër léegi ku ñu mën a nu bon jox ko relation wax naa ko xale yi ne ku ci mën contacter nga contacter ko parce que euh, lolu aussi li may reprocher xalé yi euh, relation yi sam papa moo naak le monde diplomatique dafa xawa soxé ah lolu mom xalé xale yi poursuivre ñu ko trop trop euh, ndax euh, pour xeyna na amuñu jot aussi mais ak au-delà du Maroc hein, je veux dire Serigne Abdou fi mu amoon relation ay Irak euh, euh, dans le monde arabe les libyens gis nga moom a njëkk wax ni bi ñuy njëkkee attaqué euh, kii déedéet Saddam Hussein de ki ci des déedéet kii xeex baa ngi dem ba léegi Hafez biñ ko njëkkee attaqué maa ngi toog ci néegam mu ngi toog ci fauteuilam di seetaan lalam di seetaan télé mu ree daal di ma tubaab yi di dugg nañu ma ne ko ah lu tax mu ne Syrie siri du du Irak de Hafez du du du Saddam Hussein de ma ne ko ah mu ne dañoo foog ni ni ñuy def Saddam noonu lañ koy def guerre bi dina yàgg te duñu ko gañe loolu sëñ Abdou ma ko sëñ Abdou ma ko njëkk wax ma ne ko ah lu tax mu ne ma Hafez al suis naa homme, jëy fi ne fofu ay clan la dafa xam de Syrie mu te clan yi fofu dafa am relation yo xamni kenn du ko ci seeni mamat la alors que clan wu fi les chrétiens dañuy préserver ces ay relation parce que ku ci da nga intérêt

de pouvoir ba léegi guerre baa nga fa gagné wuñ ko loolu sëñ Abdou ma ko njëkk wax dafa amoon dafa xamoon la monde arabe xam leen xam ay seen relation xam mës na moom mës na nañuy waxtaan benn jour lu ñuy wax ci waxu màkk eh, ak de boobu mooy tur euh, bana man maa ko ni màkk ni ko saoudien yi def jaaduwul parce que mënuñu lu ñëpp bokk ñu jël ko di ko décider ñoom kese mu ne ma loolu dina mësa dañ mu ne ma ndax ñoom jubuñu te mbiru yonent bi dara intéressé wu leen ci ndax dañ ko bëgg def commerce te yonent bi ëpp na commerce fi mu nekk dañu la nekk ca booru kaaba ga yëpp ñu ngi koy toj naan dañ koy def ay hôtel waaye yàlla na leen ci yàlla bàyyi moom dafa xamoon le monde arabe xam lu bari ak Mauritanie gi dañoo mën a fay relation yu am solo waaw ñoo xam ni ay famille yoo xam ni ca tangu alaaji malik la yooyu yëpp moom moo ko dem revivifier ko amaat ak ñoom ay relation waaw loolu yëpp moom vraiment euh, monde arabe moom wax dëgg yàlla amoon na ci amoon na ci relation yu am solo mais bon am nga rek euh, jamono mooy tax xëy na euh, gars yi poursuivre guñ ko mais c'est pas trop tard mën nañ ko mën nañ ko poursuivre ba léegi parce que ci lool sax lay ñew ndax am lo xamne daw bëggon na la ko laaj sama xel fattu moy dama gisoon nga def jéggu bu am solo jogi fii dem siyaare di Cerno Cheikh Ahmad Tidiane Babou Madina Gounass koku nekkon kenn ci sa wajur koo xamne fi mu tegoon sa wajur man gisuma ko ko fa tek lool nag ma gis nga dem ba kërëm seeti ko lan mo lu position ci loolu ak itam ban satisfaction nga am ci dundal ci kóllëru gëy gog nga xamne ci na Ahmad Tidiane amoon ak sa wajur waaw xam nga man dama xawa bari pas bari solo mais dama man dama bëgg di fréquenter mag ñi kooku sama nature la man mosuma ànd ak sama morom benn ci man loolu sama nature la euh, samay xarit ñu ci bari mën nañ ma mën mage nañ ma plus de dix ans ah man nag awma yenn frontières yi surtout ñoo bokk Cheikh Ahmed Tijani euh, dama toog fii dama ko yàgg mbébét ne dama bëgg a seeti Thierno Ahmed Tidiane ndax au dem moom man sama nijaay moo daan faj papam dañ ko wutaloon nekk ci clinique am euh, danaan dem ba mënit gunaas di ko fa di faj sama yaay itam dafa am relation ak ñoom euh, bi sama yaay dëkkee bopp bu ñëwaan toujours dafa koy seet si euh, ma bëgg ko nag gis parce que man dama sopp nit ñu nitu yàlla yooyu nit ñu sell ñooñu ah, yàlla nag am na lu ma ci defal ndax dafa ma koy yombalal toujours ah, ma man bari na mag moo xam ne bi sama papa di génn àddina xaw ma la man maa wut sama rendez-vous dem seeti la bari mag ñu xar kër gi ñu ci bari maa jël sama tànk dem seeti la nuyu la ziar la ne la ah, nga dénk naa la sama bopp Ah, Thierno Amath Tidiane nag moo ñu ne ma moom yàggu ko mbébét am nag xale yow a def arrangement bi ne ma amul benn problème nee na bu fi ñëwatee nga ñëw fa am ah, dem ziyaar ko ndax ñoom ñëpp wax dëgg yàlla que Cheikh Omar Foutiyou ama ah, du moins Cheikh Amath eh, Sayd ah silsila alaaj Malick la ñoo bokk fi ñuy naane ñoo bokk fi ñuy naane mu nit ñi nag xamuñu damay faral di wax toujours Sénégal nañ def attention ci këru diine surtout Tidiane yi ndax li ñu boole nit ñi xamuñ ko bari faru tiijaan tey boo gis foog ni dafa autonome que ah, bokkul ak ñun ñëpp ñoo bokk silsila alaaj Malik kon nag ñoom ci suñ ci njabu njabootu alaaj Malik la bokk te dañoo dañoo am flet te dañoo mës a nettali euh, moom euh, xaw ma ndax dëgg la mais dégg naa li tax muy ñëw Tiwaawoon chaque année baayam moo ko feeñu ne ko demal nga ziyaaral ma ci alaaj Malik muy def chaque année man loolu fekkee na ko bo bo tay chaawon chaque année day ñew kër ga yendok Serigne Abdou ñu tok ñu añ dem ziaré ji rawdi yi tok waxtaan def seen yi fi mak a ah, ku mel non nga xamni sa baye daf ko daan accueillir nak ah, baxna na nga dem di ko nak ndax am nañ lu ñu xam luma ma xamul man ah euh, nonu la ko bëgg a defee Thierno Bachir ndax mom dama ko sopp maa ngi wut rendez-vous pour dem seeti ko nuyu ji ko ziyaar ko ah, keneen ku sama xaal nangu itam rek ma dem seeti la ndax man aw ma barrière yenn yi aw ma yenn problème yi ay nitu yàlla lañu te am nañ lu ñu xam lu ma xamul te itam seen benn faatiya bu ñu tëfli ci sa loxo sax wax dëgg yàlla eh, kuy dund ba dee te xamoo ko amoo ko amoo chance li may faral di wax ñi mosoo gis naa sa bopp mosuma ko gis man yaa yaa ñàkk chance waaye ñooñu buñ fi yàlla bu yàlla defee ay mag lañu te yàlla moom kenn xamul man dama leen di seeti de dem seeti leen vraiment mu nekk loo xam ne ba pare këri diine yi benn lañ surtout ñun tijaan yi suñu biir benn lañ la preuve boo demee tey suñu kër kër da ngay gis ñoom ñëpp seen i doom yeeg seen jarbaat yi ñu ngi sëy ci kër gi ñun suñuy góori kër ñu ngi jël soxna ci seen i kër yi kont famille la famille bi nag euh, mën na am ku ne sa maam nga nekk mais teewul ne fa ñuy naane benn la ca Cheikh Ahmed nag te loolu moom moo ëpp importance donc moo taxoon ma dem seeti ko euh, baay bu baax boobu le mu defal ma ñaan yu baax jox ma lu baax ne ma dencal lii <laughs> lam lam ma jox na du ma jënd dama ko wax kenn <laughs> di koy di ko ziyaara au passage vraiment tabaarakallaahu damay wax ne man mii li ma ko soppee rek mooy sëñ Abdou ndax damay gis ci moom sëñ Abdou ci jëmmam ci dalam ci jaamu yàllaam ci sellam lépp sëñ Abdou laay gis ci moom moom laa ko bëggee sëñ Abdou xam la bëggee góor gi yàlla na yàlla mottali loolu euh, soxna si nag dafa mel dañuy tëj paas boobu ñëw ci paasu gàmm gi gis nañ ne da nga bokk ci kuréel gi nga xam ne mooy Sawiya Tidiania di seere li nga xam ne communication gàmm gi loolu fan la juddoo ak kan moo ko euh, juddulu ak itam ndax da nga amoon ndigalu Serigne Abdou bokk ca wala euh, da nga ca bokk noonu rek. waaw Joliou Sawiya Tidiane moom mbébétu Serigne Abdou la ndax dafa. Euh, dafa demoon ba gis ne folklore bi dafa bari ci wàllu 2002 la foog naa euh, folklore bi dafa xaw bari ci ci gàmmu xam nga olof société olof moo mel noonu bu ñu miinee dara rek banaliser ko mu dem ba nit ñi affaire gàmmu ñu bugg ko def folklore moom mu xëy suba doon ko jàmbat ci sër Abdoul Aziz Kébé turandoom doomu Pa Khalifa Kébé euh, Abdoul Aziz nag moo am vision créer cellule créé ko dem wax ko ko mu ne ko ayca euh, yaa dañ ko créé mutul deux mois man ma ñibi ci Sénégal bima ñëw abdaziz woma ñu waxtaan mu ne ma man de dama créé cellule ma ne ko luy cellule mu ne ma ah góor gi dégg muy mbébét né dal dafa bari folklore té kër gi war nañ def quelque chose de culturel mu ne ma xalaat ni dal damay dajalé ben cercle rek ñuy réfléchir bu gamu jotee ñu proposer ben contenu culturel symposium ñu waxtaan ci ay thèmes ak yooyu ma ne ko dugal ma mu ne ma ah ma ne ko bokk na parce que man <laughs> dama bëgg toujours di indi sama contribution sama tarbiya euh, ci loolu la ku nekk fa ngay jaarale sa tarbiya ndax li sama papa waxoon ba ma nekkee nekk daayiratu mustarchidin wal mustarchidat euh, benn jour ma ñëw fekk ko mu ngi dëkk Castor maa ngi yàkkamti nag ñëw mu nekk papa ma ñaanal ma damay dem foo jëm ma ne ko damay dem tour de zone xaw ma tour tour yooyu mu daal di ma ah waaw ma ko ah waaw man de mu ne waaw waaw li ngay def pour lan la ma ne ko ci lan mu ne ma li ngay def nii dem ay ma ne ko mais sama tarbiya la mu ma ah loolu de mënuma ci dara kon nag tàllala sa loxo ma ñaanal la kon nag man dama ba a def sama taam am na ñoo xam ne ci wàññi la ñuy man ma tarbiya fa parce que yàlla may na ma jàng naa tuuti donc cellule waaw engagement rek euh, parce que man bëgguma lu ne yàcc man kenn jaaral nga lu ma yàcc waaw dama bëgg lu xew ci kër gi ma dugal ci sama loxo ci dama gën a rafete nag loolu sama nature la euh, ma daal di ko nii waaw mu ñu créé si Elisabeth Jean ne Aziz dugal ma mu dugal ma laaju ma sax qu'est-ce qui se passe parce que man noonu la ma yàlla bindee euh, ñu commencé nag liggéey def ñoo njëkk def yàgg na def fi centenaire bu Alaaji Malick gàmmu Tiwaawan invité sommité yi àddina bi yëpp wax dëgg yàlla euh, mu nekk une réussite euh, ñu boole kook yeneen comité def ko ben comité euh, mu nekkoon lu am solo ah boobu ba léegi itam yàgg na dem yi bëgg a yàgg 2002 2004 2004 la 2004 ba waaw moom moom la moom la woon ci la ñu defoon 100 ans wu gàmmu Tiwaawan vraiment mu nekk loo xam ne at boobu ba léegi nag at mu ne euh, ñuy indi ay programme yu bees ci kër gi programme culturel wax ay thème jàng xasida mag ñi téere mag ñi génne vision Alaaji Malick fan la tëral ni mu doxale euh, doctrine am fi mu ko jaarale ci njàng ak njàngale indi si mag ñu baañ sëñ Babacar Alaaji Mansour ñoo ñëpp ku ci nekk at mu nekk rek ñu jox leen seen wàll nag ci gàmmu gi def ay animation culturelle dañuy am ay programme yu am solo ah di am aussi lëkkaloo ak yeneen organisation ay ONG di liggéey ak ñoom yenn saay ci ay thème parce que communauté la ñu yore te communauté lu nekk daf leen war a intéressé ah, depuis 20 ans tam ñu ngi ci di koti koti yàlla yàlla maa ngi ci ah, bu njëkk maa yoroon marketing bi ci cellule Zawiya Tijane ak euh, ba mujj gi ma mujj bàyyi léegi nag depuis bi ñu restructuré man maa yor wàllu koom <laughs> entrepreneuriat ndax dama jàpp ni réew mi euh, suñu suñu communauté euh, daayira yi bari na waaye liggéey bi néew na léegi nag ñu bëgg nag daayira yi dugal nag ah liggéey ci biir daayira yi mu nekk beneen déclique économique ndax réew moo jamono moo toll foofu nit ñi boo leen di wax yàlla yàlla yàlla yonent bi sañ Babacar laaj Malick te yoruñu dara ci seen poche bu yàggee dana ne ah lii nu nekk lan la waaw comme ci jamonoy xaalis la nee nañ sax yonent bi tey moom laa dégg sëñ Cheikh nee na bu yonent bi doon ñëw tey milliardaire lañ koy def buñ ko deful milliardaire kenn du ko déglu waaw kon nag nañ wut itam lu nit sutura parce que sutura dafay indi dignité am loo def sa poche dafay indi dignité day sàmm dignité

communication lañ koy jaarale réseaux sociaux télé yaa bari boo bàyyee sa rek ko ñu communication nag di gérer communication bi ndax communication communauté dañ koy gérer sinon da ngay lu leen neex ñu wax ci communication parce que Adina bi communication damay wax suñu communauté

ñi ngi def li ñu mën waaw suñuy dënam ak suñuy tànk ak suñuy miette di dajale ba def li ñu bëgg a def waaw je daal loolu mooy cellule Zawiya Tijane ah ñu dem ci beneen phase nag li ma la wax nii dañ ko restructurer waat indi waat yeneen commission indi commission économique ak yooyu pour mën a nag indi communauté bi nag wan leen ni que jàng Taysiir baax na jàng baax na waaye itam ut koom baax na ndax réew mi foofu lañ toll ndax réew mi. ñi ngi jëm ci ay rapport de force rapport de force yooyu buñ ko bu fekkul yow nga préparer sa njaboot dañ lay gas ba nga suul ñu suul la kenn dootu la déglu nag jot na ñu nit ci suñu communauté ñu def benn benn sursaut économique pour ñu mën a wàll boobu nag mën lañ ko dénk ma topp ja di kotti kotti d'ailleurs ñi ngi war a def benn foire au mois de novembre incha allah yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm foire de daayira lañ ko tuddee ah, en relation ak waa CICES

fii juróomi at may ne yooyu yëpp dana génn ndax am na yeneen i programme yu ne ci biir yoo xam ni am na solo création de mutuelle de crédit yooyu yëpp dañ ko fañ ko bëggee wax dëgg yàlla bëgg rek euh, ouverture am suñu këru bopp tiwaaw ca suñu kër tiwaawoon fële euh, ak yu bari ak yeneen i projet ñi ngi ci daal incha allah ne yokk leen ñaan yi rek te lépp rek ci bëgg euh, liggéeyu mag ñi gën a gëm kaman rek incha allah tabaarakallaahu soxna si bëgg naa benn côté nag nga ñëw ci actualité la mooy ndaw ñi surtout nga ñoo di leen ñu delluwaat ànd ak sago ndax lu ñuy miin ci internet bi léeg-léeg bu ñu jub dëgmalee gàmm dafay mel ni comme genre gaaralante lay doon euh, murit wala tiijaan kudd moom du ñëw na nangam nangam genre wax yoo xam ne ñun xameewuñu woon yooyu te itam ku bëgg a baax dem ci yàlla doo jël yoon boobu noonu nga xam ne Seydi Hajji Maalik puukare taxu ko woon jóg concurrence taxu ko woon jóg dafa nawloo woon ay mbokki diineem yéene leen jàmm ñu yéene ko jàmm kon tey nañ ko dimbali ci loolu bañ a wàcc niveau bi ba mu toll fa nga xam ne nag parce que alalu mag kenn ko fooye waaw ñu ñaan daal nga delloo si ndaw ñi en tant kilifa en tant que membre de la famille koo nga xam ne nag yaa ngi ci biir kër gi loo xam ne nag delloo leen ak laawee leen biir rek lay doon pour que ñu delluwaat ci susaan waaw réew mi de dafa nekk ci jamono te réseaux sociaux yi waxoon naa ko fi ay temps dafa may baat ñi nga xam ne waruñoo wax ci pénc malheureusement tey eh, baal ma énergumène bu jóg rek toog ci internet bi wax a wax a wax lu la neex ah loolu nag bon état mënu ci lu bari limu mën mooy yenn saay mu tëj fii rek mais réseaux sociaux moom la kenn mënatu la contrôler ah, waaye ñun suñu mbokk xale yi ñun bokk. monsieur Wajur di wax de mhm. mhm. ñu waree wax jar na ñu fay leen pour ñu mais te wax na dëgg parce que man des ma gis internet bi loo xam ne dama naan hmm, kii moom lii fu tax mu tey ñu ko noppiloo mais xale yi. je crois que dañu bëgg toppandoo toppandoo baaxul. ñun suñu kër dañu am nuñ ñu yare te euh, nit ñi yaree bu ñu ko bu ñu bàyyee nii tendance bii ma gis euh, mbir mi du folklore mbir mi du xuloo gis nga alaaj Malik yiw la woote yar la woote euh, jàng la woote Eh, gis nga professeur yi Badara Thiam dama mës a waxtaan ak moom di ko interview ma explique ko mu ne ma Alaaji Mali yi mu def ci njabootam moom rek moo ko réussir ci Sénégal man ne ko lu mu def ci ñoom mu ne dafa fexe ba jàngal leen mu ne boo jàngee da ngay am assurance nit mënatu wax lu la yóbbu mu ne boo jàngee. Eh, nit ki mën na laa coloniser nii ci kaw yére mais sax xel du ko coloniser ilaa yow mi tiin te Alaaji Malick wax dëgg yàlla moom jàng ak jàngale Alaaji Malick mosul jëfe sax ay wilaayaak yi mosu ko intéressé bien que amoon na ko ndax ku jur sëñ kër Si am nga wilaaya <laughs> kon nag xale yi tey jeunesse su tey nañu bàyyi toppandoo ñun bokk ñoog ñeneen ñi et ça je le dirai dama koy wax tout le gis nga ab tiijaan ne kër alaaj Malick nga gëm bokkook keneen ñun dañu am benn ligne de conduite boo xam ne war waruñu ko jàdd bu ñu gisee keneen di wax di gaarawaale bàyyi leen seen gaarawaale parce que gaarawaale bi lu mu lay wàññi day tax yow nga def la nga war a def Euh, bu gàmmu jotee léegi effervescence bi man folklore laa ko tuddee. folklore la rek. folklore la euh, ñun dafa am gàmmu jaamu yàlla la ndax guddi yonent bi la te yonent dina mooy gën gi mindeef kon kii ñëw ci gàmmu war nga préparer sa bopp boo boo ñëwee yiw wa fa am nga mën koo taataan parce que mag ñi ku di duñ la jox ca lañ bëgg la nga am lañu am. yow yaa war a defar sa bopp dix jours yii ñuy burdu mais dafa war a am jeexital ci yow burdu si arrangement lañ tëbbul rek def ko dafa war a am jeexital ci yow nga xam li ñuy wax waaye waaye Mawla salli wa sallam waaye rek boo yegg see Tiwaawan jël sa kurus def jël sa téléphone yaa ngay snap yaa ngi ah. man démb rek maa ngi koy wax sama sama sama sama xale bi ma nekkal ma naan ko mën photo yi ñuy photo luñ koy doyee léegi maa ngi seetaan burdu bi gis leen taluñu sax jàng seen burdu ña nga yore seen téléphone xoola ña nga ca biir kii ba naan nii di photo léegi ma ne ko waa photo yi ñuy photo nit ñi ak di filmer luñ koy doyee koo koy wan yow ki nga koy wan mi ngi seetaan télé bi comme yow pour te dire ne la yenn yi sax yàlla ma yàlla ba ijo si li tubaab yo day sof yaa ngi ñëw pour burdu toogal nga yaru nga toog ya nga jàng sa burdu nga jóg nga ñibbi waxtaan wax dëgg ca la mais nekk fa di photo yaa ngay ca raw alaaj maan yaa ngay photo yaa ngi ca raw Si yaa ngay photo yaa ngay snap la xaw seen yi fi caaxaan yooyu je veux dire ñun dafa am yar bu ñu yaree am na loo xamante képp kuy taalibe Tijaan ngay ndaw booy dem war nga mën boo jógee Tiwaawan li may faral di wax ne boo jógee Tiwaawan nga nga dem ñaan fa sa soxla ak yiw ga fa ne nga ñëw dang fa nga dëkk te soxla ba fajewul xoolaatal sa bopp du ci mag ñi de ci yow la parce que dafa am yar ak comportement boo xamante ni nit ñi war nañ ko ñun ñu di copier keneen mën na def lu ko neex ñoom la ragal mais ñun dañoo yar alaaj Malick bàyyi bind na bàyyi fi sëñ Babacar wax na bàyyi fi bind bàyyi fi mm, maam Abdou wax na bàyyi fi bind bàyyi fi mag ñi ñoom si ku ci nekk ñun dañu am c'est-à-dire que boo leen di déglu sax tous les jours yow war na am comportement boo xamante ni war nga ko jomb

Eh, eh, eh, nu mu tuddati taalibi tijaan bu mënul sayfi yi mi ngi mel ne golo gu mënul yéeg ma ma déglu ko daal ne xale bi kay kay kay kay sayfi bi mokkal ma ko woon kay <laughs> dama koy jàngi parce que il faut ma mokkali ko parce que lii moom ëpp na mais en fait nit booy koy déglu ak naan kii mooy sama sama modèle mais dafa am loo wala roy ci moom sama sëriñ bi fii mu yegg tey damaa bëgg man yegg fa ndax alaaj malik noonu la njëriñ moom lépp lu mu xamoon jàngal na ko ay taalibe ba bi muy génn àddina wàcc na fi fu téeméeri alaaj malik ku ci nekk mënoon nga nekk xalifa cheikh mais nit kër gi iñaane am na këru diine yoo xam ne gis nga seen secret yooyu duñ ko wax kenn ku du seen doom kër alaaji malik ngay ñëw ñu wan la defar la ba nga mel ni moom mais loolu boo ko amee ci say sëriñ mais seen dundin ak seeni wax da nga ci war dafa war a nekk royukaay ak modèle ci yow. seen da nga ko war a protéger. da à travers sa jëmm. parce que nee nañu boo gisee euh, sëriñ sëriñ bu nekk natt ko ci ay taalibe. mooy saayir taalibe donc tey xale yi ñuy def appel ñu bañ a roy li xew parce que li xew. ah am na côté bu positif de mais mën 70 pour ba si négatif ñoo ma koy faral di bàyyi leen loo leen internet bi foog ni internet 70 contenu am ci internet c'est pas vrai li ma sama benn médecin wax ma dem di ko xool naa ko jël di seet ci internet mu leen bàyyi médecin internet bàyyi leen médecin internet parce que wax na dëgg internet mënul pas remplacer nit

na nekk ci wàllu politique na nekk ci wàllu leneen mais am na loo xamante ni ñun yar boobu mais mag ñi wax nañ ko jëfe nañ ko kon nag ñun nañ ca dellu parce que mënuñu am lu ko ëpp gis nga bu ñu yaakaaree ne tubaab yi man tubaab yi yàgg naa ci ñoom de dëkk naa ci dëkk réew tubaab yi ñaar fukki at ak nanga amul lenn lu ma leen nawe leen dong laa leen nawe seen organisation ak seen yar waaye leneen du jikko ay alal ak ay rafet naag ay man yooyu yëngalu ma parce que amuñu jikko waaye am na lu ñu am mooy am nañuy yar ak organisation seen société organiser nañ ko ba ku ne la nga war a def ngay def ku ne la nga war a wax ngay wax sa yoon nekkul ci kenn re nañu aussi doomu aadama mooy toppatoowuñu sa vie xam naa ni moom bu ñuy dugg na loolu ci leen di yóbbu àjjana tubaab moom ak réew tubaab toppatoo wuñ sa dund toppatoo ci li ngay def te organiser nañu seen dund ba kenn du sonal kenn kenn man nag côté boobu moom naw naa leen ci waaye leneen li ci des yëpp naw naw ma alal jeeg alal ji dañ koo sàcc ñu ci dëkk yeneen dëkk yu amul kii lañ ko jële donc vraiment man damay ñaan def appel xale yi njaboot yi ci kër gi nañu delluwaat ci valeur mag ñi ci yar ci teggin ci jàng ci yiw parce que gis nga valeur yooyu amuñu lu ko ëpp toppandoo yi ñuy toppandoo man topp dara dafa fees parce que ku malik di sa sëriñ kenn dara warul fees sa bët lekk gu neex warul fees sa bët mbubu mu rafet warul fees sa bët warul fees sa ndax am na lu gën a am importance loolu mooy jikko te mag ñi bàyyi nañ fi loo xam ne boo ca tënkoo kenn du la ëpp jikko ci àddina kon nag nañu dellu ci loolu nañ ci dellu nag ndax réew maa ngi yàqu te dara waral ko lu dul ndaw ñi il faut diir la vérité baal ma dinaa dinañ xam naa bu may wax lu leen neex mais ndaw ñi euh, dañu xaw a bëgg lu yomb nangootuñu tënku bëgg nañ lu yomb euh, bëgg nañu euh, lu ne nu am ko te du nu liggéey baal ma mi c'est la triste vérité yoonu Amérique yi ñuy jël ak yoonu suuf soo waxee ñu ne waa xale yi nañ ca dem nañ ca dem mais bakkan dafa précieux bakkanu doomu aadama lu précieux la lu lu am solo la mais jël ab gaal nga def ci téeméeri nit gaal goo xam ni Euh, boo ko nee uf mu dam nga def ca téeméeri nit ngaw mënoo fay sa maam mënul fay sa baay mënul fay ñu ne la yaa nga jëm Espagne def sept di jours ci àll ci ndox mi waa yow loolu du xaru il faut buñ la waxee nga ne aw ma liggéey mais réew mi liggéey am na fi baal leen ma de su ma koy wax nag nit ñi man leen liggéey am na fi maanaa nit ñi la ñuy teg seen bët moo mënta ne mooy xëy suba nekk milliard yëg ca kaw mënula ne dangay def tepp tepp ba keroog ba nga te tepp tepp googu ku def coono yàlla fay la ku sonn yàlla fay la tepp tepp koy def mais ñun ñi dañuy teppi teppi rek ba keroog yàlla di indi xeewal suñu bàyyi xëy suba nekk li ñu yor dañoo ko ndànk ndànk ndànk rek xale yi nag ñoo amatul boobu patience. te ñu day war di leen gëm looloo xam ne amul waxtaan wax dëgg ci la gis nga Amérique gee ak Europe gee amatul dara te nit da war a gëm sa réew parce que réew mi tubaab yi duñ ñu ko defaral américains yi duñ ko defaral keneen duñ ko defaral ñun sénégalais yi ñoo ko mun defaral suñu bopp mais day fekk nga gëm ne mën naa fee xooslu ba yàlla fekk ma fi. xale yi nag gëmatuñ ko dañoo bëgg léegi léegi bu ñu demee deux ans commencé yónnee après ñu tabax kër après lii après la ah baax na waaye ñi cay dee bari na de. ñëpp mënaguñ li ma ne kenn ñëpp mënuñoo nekk milliardaire nit day doylu te Sénégalais xale yi dañoo doylootul da doylu li la yàlla dénk nga doyloo ko def ci organiser ci su dund gu neex. boo amee sa gerte caaf yëy boo amee sa attaaya naan boo amee sa côtelette nga lekk côtelette man loolu laa xam mais moi je c'est un discours boo xam dama koy wax toujours parce que dama ni je crois nit ñi xamuñ lan mooy essence dund mais dund yomb na mais bëgg kii sama morom mi tabax na immeuble man it faw ma tabax immeuble te yàlla dogalu ko di ngay dee rek waaye doo ko am et que loolu moo am ci réew mi aussi xale yi il ñu revenir à la raison te dem jàngi ay way xale yi nañu jàngi njàng du réer dem leen li man li ma gën a tiital ci réew mi tey wilaan du ma la ko nëbb mooy xale yi Sénégal gëmatuñu njàng. bu demee CM2 pare wala bu dem boo ko poussé ba bac ba ba ba BFM pare. bu xawee kii bëgg dem ba pare da dugg ci famille léegi. école bi amatul sécurité. waaw état bi aussi am na ci part de responsabilité xam nga loo indi lool parce que ñii la plupart ñi ñu yóbbu ñu jàngale amuñu euh, xam nga jàngale euh, xam nag laal ko waxee euh, amuru jàngale cest à nit vocation la loolu jàngale. mais tey ñii jàngale ñëpp nécessité moo leen ci dugal c'est-à-dire dañuy génn amuñu lu ñu def ñu dem ANDS xam fu ñuy jàngee foofu ci école yi après génn ñu def leen kii def leen maître ñu dem doon ci ça les intéresse pas jàngal xale yi. nekk ka alors que jàngale pédagogie dafa am foo war a jaar bu mën a jàngale bu mën a wax xale bi lu mu dégg ci noppam. mais bu dee nag loolu nag responsabilité état la aussi état bi moo moo moo seetaan parce que boo gisee ni école privée yi baree ci réew mi te genn wàll gi yal na yàlla dara baaxu ci waaw mais loolu nag responsabilité état la mais je crois que xale yi nañu jàngi njàng moo yore réew jàngi jàng nag mën na nekk jàngum école mën na nekk jàngum alquran mën na nekk jàngum métier mën na nekk jàngum leneen mais njàng dafa am importance ci réew te aujourd'hui réew mi xale yi gëmatuñu njàngale te njàngale jàng dëggatuñu jàng boo jàngee nag boobu la nga wuti sa métier lu la yàlla suturaale nga yàlla suturaal la ci nga dunde ko waaye bu dee yàlla daf la dénk cent mille nga ne man dama bëgg dund dund cinq cent mille ah mooy indi yi nga gis ci réew mi rek nag moom ñu ngi ñaan yàlla xale yi yàlla ñu dellu si waat xel yi dellusi si ñu xam ni réew mi la am Sénégal la ñu am amuñu leneen li sëñ Abdou waxoon rek bu fi ay xeer desoon itam nu baxal ko naan ndax nun fii lan am mënuñu fee bàyyi alaaji Malick mënuñu fee bàyyi sëñ Babacar Si kon nag nanu ko liggéey na mu gën a rafete te nu ku nekk lala la yàlla wërsëgale nga dund ca boo commencé ci benn bu ñaar ñëwee ñetti ñëw bu yàggee juróom ñëw mu baax incha allah nag jërëjëf yàlla fay leen. foofu lañ ko yemale rek ndax yërëm la ci jotaay bu yàgg bi eh, waxtaan moom doyaluñ ci tey yi ñu programme pour laaj la koy jeexul waaye nag eh, dañ naan bët bu rusul dafay toj eh, ñi bàyyi la rek tabaarakallaahu waaye dëggal li nga wax ba ci affaire jumaa ji maa ngi ciy lancé appel ñu yërëm xalifa bi yërëm ko mooy la làmmiñ yi ñu wàññi ko. ndax foo minute bu ne nga dugal sa vidéo jumaa ji amu fii jumaa ji bu paree jumaa ji lii moom mi ko soog kenn musul dégg mu ngaa ngi làmmiñam kon ñun ñi nga xam ne ay njaboot lañu nañ leen dimbale si làmmiñ ñi kër gi sëñ Abdou nee na euh, liggéey mënul ci ñun dara waaye nag cet duñu bal kon nañu dimbale xalifa bi ci wax ji ku nar a wax daal jëlal wiif bi nga wax foofu jëlal orange money bi nga wax foofu te ñu di ko defal ñaan ndax ñëpp am yaakaar ci liggéey bi waaye wax ci daal ñu wàññi ko wax ju bari ji te du jur dara lu dul lu dul lu dul yàq ñu moytu ko daal parce que yenn yi kër gi xamuñu woon loolu kon ñu dimbali ci loolu rek man sax tuuti naa ci wax ngeen baal ma waaye dama toog ak sër sër Xaaji Maalik rek moo tax ma am fiitu yëkkati loolu ñu dimbali wante ci rek ñun ñëpp tabaarakallaahu ku mën daal nga def jëf la xalifa bi soxla waaye li ci des moom ñu dimbali ñu ci rek fa tabaarakallaahu waaw kon sëriñ bi soxna si ñu bàyyi la rek nga euh, dénkaat Wilane TV joxaat ñu orientation ni ma koy waxee toujours Wilane TV yaa ko moom ah yow lañ ko séddee tabaarakallaahu te boobu ba léegi itam fu ñu ci jaaxlee wala fu ñu ci toll yaa ngi koy yëg yaa ngi koy xam yaa ngi intéressé wu ci mbir mi yaa ngi xool fu muy jaar bam avancé ñun tam jéego bu ñu def danañ la ko informer nga rafetlu ko kon daal ñu ngi lay dénkaat suñu bopp ci biir ak ci biti te rëccuwuñu ko lu ñu jaxasoo ak yow ndax dama koy wax euh, benn mbokk yafe naa yàggul muy oustaz Issa Diop mën na ko soxna day astu li ma ko nawee mooy personnalité bokk na ci ñag gi mu ñag boppam kenn du ko ñeme ba ko indil ay détails te loolu day dimbale doomu soxna fi mu toll nit ñi seen jikko yegg na ci dootuñu bàyyi kilifa ànd ak njabootam waaye nag soo amee xëy ba sëriñ Abdou yar la dana am loo xam ne kenn du am fitu yeeg ci si yow ñun nag loolu ñu ngi koy réitérer suñu diggante yow du ñu wax ci suuf di wax ci kaw loolu sant nañ ci yàlla ndax euh, njabootu sëriñ Abdou lañu ñu ngi lay dénk Wilane TV ci biir ak ci kenn moomu ko kudul yow kon nag loolu ñu ngi koy réaffirmer bu baax a baax a baax baax di la jox suñu kàddu rek nga dénk nuyoo kàddu yi nga bëgg a waat ñu bàyyi la simali waaw Liyane TV de sama sama sama télé la. wax dëgg yàlla ma foog naa ni eh, mi ngi def ay at mi ngi ànd ah, nga foo toll rek yaa ngi nemmeeku yaa ngi woote yaa ngi nuyu yaa ngi may wax fii tam vraiment ah eh, waxoon rek yaa ngi commencé woon ci eh, vidéo téléphone bu ndaw amul micro amul dara ah, te yaa ngi ci aw di ñaan yaa gars yi nag ñu jàpp ji nag waaw ndax nag wax dëgg yàlla ah, yaa ngi def liggéey bu am solo ci kër gi waaw du ñëpp ko mën li ngay def nii waaye yàlla mi mu am lépp yàlla na la jàppale ba nga am sa studio bopp ci barki sëriñ Babacar si ndax man nag mooy am laa gëm waaw waaw moom moom dégg nee na woon boo ko wooyee ci photo muy la ngi nii photo baa ngi nii waaye ñu ngi lay ñaan maam yàlla na Filaan TV dem ca kaw ca kanam incha allah yàlla na yàlla yàlla mën na ko yàlla na ko def ci si barke mag ñi loo ci ñaan yàlla mën na la suturaal defal ko an nag yàlla na yàlla jàppale la yow wilaan ndax yaa ngi liggéey te liggéey bi amul par parparlo loolu sax lu am solo la parce que bari na kuy wax liggéey bi dafa bari parparloo léegi mm. te parparloo baaxul euh, traiteel ñëpp ci même pied d'égalité bi rek koo war a wax wax ko loo war a wax wax ko yaa ko loolu moo am solo kër gi ñëpp benn waaw du tee nag ku nekk yaa ngi sa roq di liggéey waaye finalité bi benn la man nag yal na yàlla jàppale la yal na yàlla dëgëral la dëgëral taxawaay bi vraiment ba Wilane TV màgg ba lépp loo ci namm yàlla defal la ko barke Sëriñ Babacar Si waaye kay jërëjëf Wilane yàlla yàlla fay. mbokk yi jërëjëf loolu moo doon interview bi ñu amoon ak Seyda Soxna Ndeye Astou Sy bint Cheikh Abdoul Aziz Sy Al Amine hafisahullah waraaw yal na yàlla euh, guddal fanam bàyyi ko fi lool li mu bëgg mbébét ci kër gi yëpp mu defal ko waajuram defal ko maamam nii rek lañ leen ko diggee woon te defee nañ ko noonu waxtaan nag bëri na njëriñ lool ñu fexe rek teg ci suñu baaraam jàngat ko ak xel analyser ko surtout ndaw ñu bokk ci daayira yi ñu déglu ko ñu ngi leen di fàttali itam loolu mu wax ci foire bi nga xam ne war na ko def ak daayira jokkoo lañu ak ñu yor organisation boobu noonu comme ça lépp lu ci war ñu war ko def ñun tam ba mbokk daayira yëpp mën a jot loolu ndax loolu daayira bu nekk war nga koo mën a jot pour mën ko fekkee euh, loolu lañ doon wax daal tabaarakallaahu di leen gërëm ñaanal xalifa bi yàlla yàlla mottali liggéey bi mu yor ci xadara maamam muy jumaa ji yàlla mottali ko ba mu jullee ko jàmm ànd ko njabootu Seydi Hadji Malick yëpp wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu من اللقاء من اللقاء سنغال أين موضوع أين بيسي من اللقاء من اللقاء سنغال سيدي أحمد سيتاو موضوع من اللقاء من اللقاء سنغال شيخ الخليفة برم جامونو من اللقاء من اللقاء سنغال برم بوني كاري برم جامونو من اللقاء لقاء سمع شيخ الخليفة حدي منصور من لقاء من لقاء